waaw ah, gis ngeen ko marché central à Mbour gis ngeen ko daj gis ngeen ko gis ngeen ko marché central à Mbour la tey la ay quatre heures du matin la jeudi quatre heures du matin ba jeudi bi moo nekk ni gis ngeen ko gis nga ñaar lañ gis nga ko dagg na ko. day dindi kanaar yu bari. day dem day dem lu yàgg gis ngeen ko gis ngeen ko waaw. dagg na ñaari kanaar yi. ah. di liggéey gànnaaw pour wax dëgg yàlla. kii kii saraxe war na boppam. gis nga ko bu yoroon aw yet wala du dara. wallaahi na ko wàcce rek. ñëwaat nañ gis nga leen. ñu ngi nii di ñëw kii xool kenn ngi nii ko xoolal kenn ngi nii gis nga ko. ñun ndànk la yëkkati gis nga. gis nga ko gis nga ko. ñun ndànk la yëkkati Helen ni marché central à Mbour day daal di buum buum wala la xaa ni xam na ko xam nañ ko de xam nga ngi leen marché central à ko waa ana waa ji mooy dugg nii. kenn ki dugg na kenn ki dugg na kenn ki kenn ki moo koy jox torche bi. ah torche la ko jox nii. waaw moom ah. dugg na. mais day génnaat. ñoom ñaar nga ko. gis nga waa ji nga ko mi ngi sóoraale. pour que bu leen kenn bettee ba nga tëj bunt bi gis nga ko tànk mu def. ñëw rek wàcc force neex nga ah ku ma xawoon loolu waaye sëñ bi ko ñii di barke bon ta bu ngeen ñëpp ñu ne billahi billahi dañoo muuru nag moo tax mënoo ci xam kenn ñëpp ma central la am mbuur pourtant ki am na liggéey boo xam sax ñu ko defee dëgg-dëgg liggéey ngeen xam ko doon ah. taxaw fii ak lamp yu leer yi. Ah, bi benn gardien bi nee na fii la toog fii Pascal. Hmm. foofu la toog waaw. kooku moom dafa yabaat. waaw hmm. ah, kan waaw bu ñu génnee wax bi de. ñoom dañoo laal seen torso yëpp. waaw. Ah, mais caméra bi jël fi mu nekk ci biir am na beneen waa ji ñëwee kenn ki dem na. Tinggal. Ya, ngarnya pilihnya. te ñii ay magum jëmm lañu xool ak seen i chaîne. non. instant bi mi ngi jël gis nga ko. Sana say clients yi doo leen di bàyyi xel ni muy ñëwante. xoolal en général boo yu lay jaay si. kon moom do téléphone la doon def ci mbuusi mi. Hmm. subhanallah. Thank you. ah bi Ibrahima di ñëw xanaa. ñu hmm? ñëwagul. kay Taravani lay jël. di xoolaat leneen nag ñàkk xel. Hmm. <laughs> non kii moo day waar non kii moo ñàkk jom waay di xoolaat leneen. koppar for bi. xaalis man allo allo dama la waxoon waaw gannaaw ba nga ko jaay soxla waaw koppar for bi la jël fii la gardien bi ñëwee gis nga. yaa ngi tànk ci suuf leen si Actubuzz pour bu ñu dugalee beneen vidéo ngeen mën koo gis ci nu mu gën a gaawee